yaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil haamil jamii'anaa bi lutfikal jamiil mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu commission bu mag bi ci kuréel bu am maanaa bi di Touba ca kanam commission sociale bu Touba kanam ci njiital Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah moom sëriñ Fallilou ak jàmbaari fàkk tëdd yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg mbokk yi. muy taw ba muy ngelaw muy naaj mbaa muy ker waxtu wu nekk commission sociale bu Touba ci kanam ñu ngi dox ci yitte askan wi ci nuñ leen di taxawoo ñu ngi dox lu mu sori sori lu mu ruqe ruqe ngir lan ngir taxawoo askan wi. di ko doore toujours nag ci daara yi ndax dëkk bi bu nu fàtte mukk ne mbokk yi dëkkub daara taxaw daara am na solo de taxaw ñooñ daara am na solo de. lu ci waaye def rek sëñ tubaa nga ko defal at mu jot commission sociale bu Touba ca kanam fàggu lim bu takku ci ay basang muy basang yu mucc ayib yoo xam ne mën nañ ko lem ñetti yoon yaatu lool gannaaw dong yu bari mën nañ cee toog di nafar dem seeti ñooñ daara jébbal leen ko oto bii ngeen di gis lim bu takku bi ci nekk ci ay basang borom yitte ju kaw ji jàmbaaru lislaam ji Serigne Mountakha xalif général des mourides ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak moo ko jox commission sociale bu Touba ca kanam ngir ñu jàppale ko daara yi ngir jàppale leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def ci daara yi mbokk yi. Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbaaru commission sociale yëpp nag dem seeti lenn ci Serigne daara yi ngir jébal leen basang yi te daara ju ñu yegg rek day mel ne. lu fa mënta woon a ñàkk la mbokk yi te lu fa am njëriñ lool la mu ngi nii ñu yegsee fekk leen ci seen barab yi ñenn ñi fekk nañ leen dong yu wàcc ñenn ñi fekk nañ leen ñuy jàngale ñu jébbal leen basang yi teg ñoom ñu ñaanal commission sociale bu Touba ca kanam ñu jàll ci yeneen daara waaye commission sociale bu Touba ca kanam bi muy taxaw daara it dafa bàyyi xel lool soxna yi nga xam ne mbokk yi taxawaayu soxna maam Asta Waalo la taxaw waaw am na soxna yoo xam ne seen yitte yépp ci jàngale alxuraan la ak sosi daara ak taxawu ko bokk yi ñooñu nag dara gën te doon farata jàppale leen ñu ngi nii di jàmbaar yi nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam bàyyi na xel lool soxna yi yëngu ci wàllu daara te yaatu lool ci dëkk bi mbokk yi loolu nag dañuy soññeewaat taxawu daara baax na lool bàyyi xel daara baax na lool waaye nañu bàyyi xelit ne am na soxna yoo xam ne ñoom it seen yitte yépp ci daara rek la bokk yi ñu ngi nii dem nañ ci ñenn ci ñoom jébbal leen basak yi nga xam ne ñoom it macha allah sant nañ bu baax ñaanal commission sociale bu Touba ca kanam liggéey bu réy bi nga xam ne moom la commission sociale bu Touba ca kanam di liggéey bokk yi ñàkk cee jàpp sax wóorul moo tax commission sociale bu Touba ca kanam di sant bu baax nag mbooleem partenaire yi nga xam ni nii lu ñu sumb ñu ànd ko ak moom moo xam ñu nekk ci réew mi moo xam jàmbaar ya nekk ci bitim réew rawatina soxna yi ndax picc nga ca kaw waaye xel maa ci suuf mbokk yi sëriñ Tuubaa de ci yitte rek la daan dox Tuubaa ca kanam rawatina seen commission bu mag bii ñu duppee commission sociale ci yitte rek lay dox yitte askan wi ay jàmbaar lañ yoo xam ne fàtte nañ seen bopp fàtte seen lépp ngir taxawu jaam ñi te ku leen taxawu kat sëñ Tuubaa nga leen taxawul képp ku bëgg a jàpp ci liggéey boo maanaa bi nga xam ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi la te commission sociale bu Touba ca kanam di ko liggéey numéro yaa ngi nii yoon waa nii jàppale leen commission sociale bu Touba ca kanam ñu ànd jàppale bokki taalib yi nga xam ne nii dañoo manqué lépp te yittewoo lépp bokk yi yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bilurfikal jamil